waaw ci euh, wàllu deuxième division bi gis nañu ne ren euh, xëccoo bi metti woon euh, torop xëccoo bu tar la woon yàlla def ci mujjantal ga ki nga xam ne mooy pikin moo jël place bu jiitu gore toppa ci mais xam nañ ne yombul woon comme ni ma ko waxee Gorée dernière journée bi la mujjee sax këf mbir mi maanaam deuxième ticket bi mu nekkoon aussi championnat boo xam ne niveau bu baax la woon parce que équipe yoyu ku xol sen xar kanam ay Renaissance Gorée Duc Pikine ak euh, ñeneen ñi nga xam ñu ngi doon xëccu euh, mën nañ jàpp ne war nañu mën am place première division donc euh, pour Gorée mom nga xam moy sama équipe dañ koy rafetlu parce que Gorée ñëpp xam nañ ne équipe bu cosaan la rax ci doli ñaari at sa gannaaw moom mo jëloon championnat bi bu ñu jëlee championnat bi as bi stop ñu ñu ñu daanu deuxième division donc euh, ñëwaat immédiatement année bi si première division defe naa ngëneel la parce que équipe yu Magui, yi euh, seen place mooy fi ñuy xëccoo euh, mon titre champion pas fini ñuy pour yéeg wala pour bañ a suux troisième division parce que defe naa ñun suñu club traditionnel yi mooy fexe comme jaraaf ni mu jëlee championnat ñun ñuy a un nouveau type de club yi ci kanam Pikine tamit bu dellu see première division ngëneel la tay si base affective et équipe yu donc euh, soxla ñu ñuy au plus haut niveau nous ngi commencer avec la première division donc dañ leen di parce que euh, équipe yooyu bu ñu day tax euh, championnat première division bi am niveau mais aussi gën parce que supporters yi compétition